yaa ngi sa jabar ak fi nit ci dëkk bi yaa ngi fi dëkk bi nit ci dëkk bi yaa ngi fi dëkk bi Macky Sall yaa ngi fi dëkk bi bu la neexee dawal jël dem ca Macron laaj ko say xalaat demal fii Sénégal la fii Macron moomu ko Macky Sall fii Macron moomu ko fii Sénégal la bàyyi kenn moomu ko nag bàyyi kenn moomu Sénégal bu fekkee ne da toog ci pala di jàpp yi tëj ku la neex nga tëj ku la neex nga joxe milliard loolu mooy jeex Ousmane Sonko boo ko laalee da nga faat ay bakkan yu bari man sama bakkan man Ousmane Sonko du nekk ci biir ma nekk ci biti dafa war a leer bu ma nekk ci biti yow dinaa la defal bagage boo xam ne say mbokk a sonn ci yow sonn bu bari danañ ci sonn ci yow te doo ci mën dara bu la neexee sëriñ bu la neex defal loola neex defal boo tëjee Ousmane Sonko dinaa bëri yow saahir jóg yow bëri yow baatin da nga daj lu métti lu métti da nga man wa kana xaqan alay na nasul mu mine laay jàng dinaa la dugal dugal loo xam ne dina solo trop dinaa wax ak yéen fan la jot buubur ba na jeex na jeex bis bu ñu demee ba 21 heures jot na ñëpp toog fii di fi ñu am lu ñu leer buñ dugg fii li ko mooy danañ ko sàkkal pexe kenn ku ne xam ne ne yàgg nañoo def loolu buñ bëggee jël nit duñ ko jël ba jël duñ ko jël ci nit ñi taxaw ndax ñemewuñ ñemewuñ bàyyi leen xel loolu went yi ne tey na couvre la guerre occasion la pour Macky Sall wàcc occasion la pour Macky Sall wàcc pour ñoo xam ne am na ndaw yu taxaw yoo xam ne Sénégal leen seet Cheikh Anta Diop jaar na fi sàkkal ko pexe Borondi Diop jaar nam ñu sàkkal ko pexe Mamadou Dia jaar nam ko pexe tey dafa jot Sénégal jeex injustice jeex jaay jeex su naan ñi nga xam ne gis dañ ko a jàppale mu jaral ñu suñu bakkan wala incha allahu maqtatadu bu sooban yàlla xeex du am xeex balaa jàmm am faaw xeex am balaa jàmm am faaw xeex am xoolal unité bi jaar xeex nañ ci jàpp yoon yàlla ko ko après nga jàpp ok voilà naka mu ak jàmm non si la bokk si la bokk su koy rey rey rey muy rey su koy gor muy goraat kon tey amul alors alors ça dina ñëw si kanam dafa taxaw ngir dëgg dafa taxaw ngir maanute man Fatou maa la ko wax sama combat yow commencé gul sax dara dama lay wax rek ay ay ay dara waxaguma ak yow waxaguma ak yow dara. def la ñuy def maa yow def dañuy def. Bassirou Gueye yow maa yow danañ def danañ def dangaa bëgg def danañ def. danañ def bàyyi leen si xel Sonko nekkul nekkul kii Sonko nekkul benn waay boo xam ne da ngay jël yóbbu tëj demeewul noonu Sonko li ma yàgg a wax jàpp leen xel li ma yàgg a wax Sonko li nekk si moom moo nekk si ñun patriotisme bi nekk si moom moo nekk si ñun duñ sàggal mukk Sonko bi ñu gën a goy waaye ñu ngir Sénégal ñu ko bëri liggéey ngir Sénégal saa su ne mi si kooku tey dañ ko tuddee wallaay ko maa ngi ziar fan fa taxawee dalal na waaw fan ngeen toll waaw waa Touba fan ngeen toll fan ngeen toll waaw Hmm. yow da ngeen ma da ngeen mën a bàyyi Macky Sall mu am jàmm man réew man lépp man ma kon

ma jëli ko dafa yomb trop. buur bu ma sant Sall bu ma sa moom Sénégal ku ko xam na ma ko sant Sall groupe bu sant sàng bu moom Sénégal kan moo ko xam. amul de amul. ci histoire yi amul amul. kan la. ah. mais léegi encore moom lañ ko moom Sénégal di jàppale ko nii. waaw Sénégal yi bàyyi bàyyi ko. dama dugal ma fii ci poche ma ci mag bu ma. Sénégal yaa ngi ay problème yu gàtt ngay joxal yëpp daal di leen. biiral kër yi Moustapha Cissé Lo wax na leen ko. doomu biiral yi Moustapha Cissé Lo wax na leen ko. ñu biiral kay Moustapha Cissé Lo taxaw ni ensemble dafa yéen tega yéen a leen di doxaan. ñun di ko taxaw fi naan ay. Ousmane Sonko dafa violé dafa violé. ñu doxaat ñu doxaan ba Ousmane Moustapha Cissé Lo wax nañu biiral kër yaa ngi nii ko wax. Voilà, non, on va